bonjour chers euh, téléspectateurs jaajëfal leen ci heure bu baax bi gannaaw euh, journal bi leen euh, rédaction bu télévision Futurs Médias di dégtal bis bu ne su jeexee ñun équipe team li xew ci biir internet bi waa heure bu baax bi min ngeen ko hashtag bi sunu net la di Facebook Twitter wala Instagram dañuy jël lépp lu information en temps réel di leen ko leen li jàll ci réseaux sociaux yi internet en général mais surtout vidéo yi challenge yi tey d'ailleurs nañ waxtaanee challenge bu am solo tey lundi 21 juin 2021 di de la musique waaw feetuñu ko atum daaw. 2020 li ko waral mooy Covid bi euh, euh, tey jii nag ci 21 juin du rek fête de la musique ci réseaux sociaux yi tey mooy self day mooy international self day moom la ñu duppee tey journée mondiale du selfie selfie nag miin ngeen ko xam ngeen selfie def na ay. mu euh, ngi def ay ravage ba léegi ci réseaux sociaux yi ci toile bi ku nekk boo bëggee def sa autoportrait ci sa téléphone portable da nga koy posté daal di koy jàllale ci réseaux sociaux yi mu nekk National Self Day mu nekk loo xamante ne hashtag la fi mu ne nii ci réseaux sociaux yi tey ci 21 juin 2021 euh, selfie yi gën a fës nag gis nañ ay selfie yu ne yuy def buzz ci réseaux sociaux yi personalité yi hommes politiques yi ñëpp def nañ seen selfie yi ku nekk euh, wane nga ni da nga in quoi ci réseaux sociaux yi mu nekk loo xamante ne dañ koy partagé yéen internautes yi def leen seen selfie ngeen envoye ñu ko tey ci émission bi dañ ko partagé léegi ak équipe digitale bi nekk ci ginnaaw di jàpp ci bi am ngeen possibilité seen photo jàll comme ni muy demee boo leen anniversaire comme tey Eh, dañuy feete lii di selfie selfie day am ngeen possibilité def seen selfie balaa émission bay jeex ñu dajale ci yenn rek daal di koy partage ak équipe bi nekk ci ginnaaw gars yi di leen jaajëfal ñoom équipe digitale bi eh, ñi nga xamante ne ñoo tax ngeen ñu ñuy mën a liir seen ay messages en temps réel. daal di koy partagé ndaw ak yéen hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram réaction yëpp gis nañ ko euh, selfie day baa ngi noonu selfie yi nga xamante ni ñoo gën a def buzz ci réseaux sociaux yi wala ci internet bi dajale nañ leen quelque rek daal di koy partagé ndaw ak yéen comme ni ngeen koy gisee nii ci ecran bi selfie day nag ah, mi ngi noonu joxe naa leen explication bi léegi tey ci vingtin juin bi du rek fête de la musique tey tamit euh, li ñuy féete mooy euh, selfie day selfie nag mag ñeeg yëpp comprendre nañ ko léegi koo gis ñu ci téléphone portable wala smartphone am danaan defal ma selfie mujj gi mu nekk loo xamante ni mu mujj def buzz ndax int moo internet ñoo ànd comme ni ngeen koy gisee ci écran bi noonu euh, personnalité yu ne président Macky Sall def na fi ay selfie daal di koy partagé ñu ci bari doon koy partagé ak réalisateur connecté bi tey euh, Pierre Da Silva wan ñu selfie mi ngi noonu ay selfie yu yu yu am solo yoo xam ni partagé doon nañ ko ci internet bi ñu dajalee leen ko ak euh, équipe bi jaajëfal leen ñoom ñi nekk ci ginnaaw di euh, jàpp ci liggéey bi ba tax ngeen mën ñu am photo yeeg image yi nga xamante ne wala éléments yi nga xam ne moom la ñuy partagé ndoo ak yéen ak hashtag bi di sunu net di Facebook Twitter wala Instagram def leen seen ay selfie ngeen envoyé ñu ko waaw tey moom loolu la ñuy def open la tey leen lundi voilà day xaw a diis tuuti quoi heure bi heure euh, noppalu la pause ci ñiy liggéey heure maire yeeg paa yi am na benn paa bu ni ma duñ ay paa ay vieux jeunes lañu wala jeune vieux bàyyil paa yi ngay wax <laughs> man leen ay paa ngeen envoyé leen ñu seen ay selfie yéen sax maire yi ñu wax ni yéen ñëpp ngi suivre émission bi chaque jour dañuy dajeek ay nit ñu ñuy jaajëfal surtout ci qualité gii mais surtout ni ñuy suivre programme yu télévision Futurs Médias rawatina euh, heure bu baax bi. bari dañ naan yow borom heure bu baax bi ñun tamit ci heure bu baax bi lañ bokk ndax dañuy suivre émission bi tey nag maman yeeg papaa yi tey self day la démb dañu doon feete euh, fet des pères jaajëfal suñu papa yi surtout ñi nga xamante ni seen papa yi dañoo génn àddina jaajëfal leen ñaanal leen yàlla xaaral leen àjjana tey mère yeeg paa yeeg ñëpp nag am ngeen possibilité def seen ay selfie daal dañu koy envoyé ñu tamit ñu posté ko ci émission bi la bokk hashtag la mujj doon ci réseaux sociaux yi mu nekk Twitter Facebook Instagram ba ñëpp a ngi posté seen ay self day euh, waaye tamit lii ngeen ñu won nekk na lu créé buzz ci réseaux sociaux yi ci week bi Aïda et moi dafa mujj nekk euh, ab hashtag te pourtant euh, Youssou Ndour ci compte Twitter bi mu ko posté wala ci réseaux sociaux yi muy Facebook ak Twitter dafa doon joxe ab message ci mbirum nekk gi mu nekk militant wu énergie renouvelable joxe ci message bu am solo ci loo xamante ni ay panneaux solaires yeeg seen euh, njariñ mu nekk lu am solo mais ñëpp di ko partagé nag ñëpp dem ci compte Twitter am daal di koy partagé média yëpp daal di koy relayer mais beneen hashtag bi ci juddu mooy Aïda et moi noonu la internet yi dañu mën a détourner mais nekk na loo xamante ni vraiment ci week bi bokk na ci message yi nga xamante ni euh, internet yi bokk nañ ci liñ koy gën a euh, partagé jaajëfal leen yéen waa Instagram live Facebook live YouTube live. jaajëfal euh, ajaa mi nga xamante ni moo jàpp madame Guèye jàpp ci liggéey bi tax da ba internautes yi seen message yëpp ñu koy gis en temps réel mu nekk lu lu lu am solo Adja waa Instagram live dégg naa ñi ngi kaas nee na ñoom tamit lu tax bokkuñu ci ñi ñu yóbbu ci jili pourtant am nañ possibilité bi question yi nga xam dañ ko fiy posé ngeen joxe seen ay réponses tey d'ailleurs am nañ benn réponse boo nga xamante ni dina leen surprendre mooy ci question bi ñu fi posé woon la fois passée mooy mbirum oto yooyu. voiture présidentielle bi sapeur pompier bi police bi wala beneen oto bi image baa ngi ci ginnaaw ñu ngi koy waajal ne réponse bi nag moom yoboo ngeen déglu ma bu baax ndaxte ñii mën nañ jàppe voie autorisée source sûre moo ñu jox réponse bi di leen jaajëfal ci Euh, post police yi commissaires yi ñoom ñëpp a ñuy suivre ñëpp dañuy bàyyi xel ci émission bi surtout retour bi nga xam ne am nañ ko ci ci question bi nga xam ne posé woon nañ ko fii ci euh, réseaux sociaux yeeg ci émission bi mooy image boobu nga xamante ni dafa bokk ci question yi ñu fiy posé image cachée mais surtout euh, image yi nga xamante ne internet yee ñu koy jàllale ñun tamit ñu jàllale ko di xool seen ay réaction ci kanam dinañ ci ñëw hashtag bi ci réseaux sociaux yi waaw image baa ngi nii continuer leen réagir ah ndaxte question réponse bi ma ci am balaa émission bee jeex dinaa ko joxe mais dina leen surprendre de réponse bi de man de vraiment bett na ma yaakaaroon naa ne situation bu ni mel du am te pourtant ñu ne situation bi dina am waaye bu amee ki ngeen yaakaar réponse yi mu ëpp lu ma gis mooy dañu naan sapeur pompier bi mooy dem ambulance bi mooy dem pardon ambulance bi mooy dem parce que voilà question de vie de mort loolu laay gis internet yi di ko di ko joxe comme réponse pourtant du moom mais maa ngi leen jox réponse bi ci kanam ñu waaj ko euh, ci réseaux sociaux yi nag ci week-end bi tey la di wax naa ko dañuy dajale info yi nga xamante ni ñoo gën a fës ci week bi ci réseaux sociaux yi statut WhatsApp yi Facebook Twitter wala Instagram mbirum euh, Sadio Mané hashtag bi dafa mujj doon Sadio Mané ñëpp di ko euh, félicité ñii di ko jaajëfal ci li nga xamante def na ko ci weekend bi ci dimanche bi fële ca Bambali dëkkam ka mu soxee ko daal di inauguré lii di benn hôpital boo xam ne ñàkk na ci wala dugal na ci lu tollook 350 millions de francs CFA ñëpp a ngi koy relayer image yi def na tour monde entier bi euh, tour toile bi ñëpp di ko partager hashtag bi mujj doon Sadio Mané di ko jaajëfal ñëpp di ko remercier ñii di ko euh, mi ngi noonu image yi ngeen xamante ni gis ngeen ko mu nekk lu am solo waaye ci internet ci internet bi moom vraiment euh, internet yëpp jaajëfal nañu kii di ballon d'or sénégalais bi di Sadio Mané. nekk international di évoluer la ci Liverpool ci taxawaayam mais surtout nu mu gestoo euh, dëkk cosaanam di bàmbali lépp lu mu am yóbbu ko bàmbali di ko jaajëfal hashtag bi ci Twitter Facebook internet yëpp ku ci nekk def na ab post bu rëy daal di koy jagleel kii di Sadio Mané ci euh, lu am solo li nga xamante def na ko fële ca bàmbali ci football d'ailleurs la ñuy des ak kii di Cristiano Ronaldo mu jër record beneen record mais cette fois-ci ci internet la 300 millions de personnes moo koy suivre ci Instagram lu musul am amul benn personnalité kii mooy vrai influenceur mën nañ ko dippee noonu moom Cristiano Ronaldo 300 millions 300 millions de personnes di ko suivre ci Instagram mu nekk lu yees moo tax it médias yëpp ñëwaat nañ ci internet dafa am solo waaye li muy def it am na solo moom meilleur buteur de l'histoire ci euro bi moom euh, portugais bii di Cristiano Ronaldo ak euh, ay statistiques am yu dul jeex yi. di ko ñaanal wér mu gën a continuer di ñu bégal moom actuellement mooy personnalité bi di gën a suivre ci monde bi amul kenn ku ko ëppale ay followers comme ni ñu koy waxee ci Instagram. jaajëf question yaa ngi noonu nag image cachée bàyyi woon nañ ko fii ñëpp di joxe ci seen ay réponses wala euh, commentaires yi ci Facebook gis nañ ko. Euh, Instagram gis nañ ko waa Instagram live fàttewuñu leen gis nañu commentaire yi ci YouTube bi ku ci nekk euh, joxe woon ci image bi nga xam ne bàyyi woon nañ ko fii di euh, Laurent Gbagbo ñu bari nag jaawale woon nañu jaxase woon yóbbu ñu ci yeneen personnalité pourtant dañoo génnoon li taxoon contexte bi mooy Laurent Gbagbo mi doon dellu Abidjan gannaaw fukki at yi nga xamante ni mi ngi woon ci ay loxoy yoon. loolu nag moo taxoon ñu indi image cachée bi ba bonne réponse bi mujj doon euh, kii di Laurent Gbagbo réponse yi rek bari na mi ngi noonu comme ni ngeen koy gisee euh, commentaire u internet yi ci euh, émission li xew ci biir internet bi moo tax ñu bari dañoo trouver aussi moo tax joxewuñu kenn yóbbuwuñu ko ci Jili CSB mi sponsorisé rubrique bi ma nga nekk rond point cité kër góor gi di ko jaajëfal moom jiili ci kóolute gi moom euh, lépp loo xamante ne ay matériel électroménager la mën nañ ko fa amee téléphone portable yu bees yi Samsung yu bees yi Samsung Fold yi moom jiili mi nga xamante ne aussi mooy euh, seule boutique bu ñu euh, certifié mën nañ ko jàppee authentique moom Jili CSB ma nga nekk rond point cité kër góor gi question bu bees bi comme que Laurent Gbagbo bi internet yu bari trouvé nañ ko dañuy bàyyi semaine bi dina am dinaa ñu yóbbu ñaar euh, yóbbu leen fële ca Jili CSB ma nga nekk rond point cité kër góor gi Jili ñu jël seen lot d'habitude téléphone portable lay doon image baa ngi noonu Laurent Gbagbo nekkoon fi njiitu Côte d'Ivoire delluwaat ci euh, delluwaat ci dëkkam gannaaw fukki at yi nga xamante ni toog na ko nekkoon ci diggante loxoy yoon diggante bi mu amoon nag jafe-jafe yi euh, ak waa yoon CPI Cour pénale internationale gannaaw ba ñu. gracier ko toppeetuñ ko ak benn tuuma moo tax mu dellu si fële ca Côte d'Ivoire dellu seen bi nag def na buzz ci week bi d'ailleurs dañoo créé benn hashtag duppee ko Gbagbo Day gis nañ lépp image yeeg ya fa jot a xew jaajëfal suñu confrère bi Abdoulaye Cissé ci ni mu doon partager information yi moom tamit en temps réel ci réseaux sociaux yi loolu mooy euh, réponse su image cachée bi beneen image cachée bu bees bii moom xam naa ne dafa xaw a saf sànq maa ngi koy wax ki koy euh, monte nan koy image bi nga joxe ni xaw na saf de est-ce que gars yi dañ ko trouvé Pierre bu image bi paree ñu wan ko téléspectateurs yi internautes yi ñu xool commenté ñoom tamit gaaw nañ ci joxe réponse waaw kan moo nekk ci ginnaaw image bi moom ci boppam day joué moom réalisateur bi day joxe waale <laughs> xalaatam ak commentaire am moom mooy njëkk joxe réponse bi te day faussé saa su ne <laughs> moom Pierre day faussé saa su ne dafa bëgg dem ci jili CSB mi sponsorisé rubrique bii pour jël yi téléphone portable bu demee day photo wu partagé photo yi ñun tamit ñu partagé ko jii lii di ko jaajëfal ndaxte internet bu ñu choisir bu demee foofu day jël loowam d'habitude téléphone portable doon daal di photo wu partagé ñun tamit ci émission bi ñu jàllale photom jaajëfal la dernière fois ki gagné mën nañ ko wax gagné ki ñu choisiroon mooy euh, Rasoul Niang dem na jëli photom euh, jëli téléphone portable am photo wu partagé ñun tamit ñu partagé ay image kan moo nekk ci ginnaaw image bi wanaat leen ko bu baax ñu commentaire xool kan moo nekk ci ginnaaw image bi internet yi joxe ci seen xalaat mi ngi noonu voilà lii nag am ngeen possibilité commentaire muy Facebook Twitter Instagram ngeen joxe seen réponse kan moo nekk ci ginnaaw image bi dafa mel dafa xaw a jafe de waaw gaa ngi commentaire maa ngi gis Dan Ngom Omar Diop gis naa commentaire am du wax benn li ñuy wax bind yëpp duma ko wax damay bàyyi gaa yi gaa yi seen. seen commentaire via suñu plateforme yi actuellement nous sommes en sur Facebook ak Facebook live beneen question mais balaa boobu dañuy joxe réponse su question bi nga xamante ne fi ne nii ñëpp ñu ngi ciy joxe seen commentaire te ñu bëree faussé mën nañu jàpp ni ñëpp a sax wanaat ñu ko oto yi voiture présidentielle bu police ambulance wala sapeur pompier. mën ngeen joxewaat seen am ngeen chance joxe seen dernier commentaire ma xool ko ba xam nax dingeen trouver mais bii moom dafa doy waar ndaxte suñu benn téléspectateur moo joxe turam ndax nee na bu ma nëbb turam waaw commandant la walla commissaire la en tout cas ci nitu ñuy sol tenue la ñu respecté ci réew mi mu ngi noonu réponse baa ngi noonu effectivement moom dafa ni euh, Euh, voiture euh, président bi mooy am priorité saa su ne loolu mooy logique bi saa su ne oto président mooy am priorité waaye ci contexte bi te oto président bu amee priorité président du dem moom rek saa su ne dina am lu ko jiital mooy flèche li koy jiital nag police lay doon donc police mooy jiitu lu yéem a xaaral leen woon loolu président mooy jiitu moo am priorité ci lépp moo tax président buy génn ñëpp dañuy euh, taxaw xaar mu jàll. te président saa su ne cortège am dafay am flèche police mooy jiitu donc ci situation yi ni mel priorité bi police la xaaraw leen ko woon de Pierre dégguma nga wax de <laughs> réalisateur bi ngi réfléchir naan mais wax na dëgg ah waaw cortège boo gis nag dina am ambulance mi ngi ci biir sapeur mi ngi ci biir dañuy bokk ligne waaye moom réalisateur bi ngi wax nee nañ cortège mi ngi jéem a douter wala di calculer réponse bii ñu joxe réponse bii mu joxe mooy résultat bi mooy police mooy jiitu président moo am priorité saa su ne cortège présidentiel mooy am priorité saa su ne mais cortège bi du jiitu sans sécurité sécurité bi police mooy jiitu après président beeg topp ci sécurité beeg la ci topp après am ambulance ab sapeur doogu ko ñëw lii lañ joxe comme réponse ñi ko trouvé ñii daanaka yéen ñëpp kenn trouvé wu ko ndaxte keroog bi ma paree kenn ci euh, buggu ñuy joxe turam ci responsable yi voix autorisée yi ñooñu moo ma jox explication yi leer ni bindal ñu ko tegal ñu ci pour téléspectateurs yi comprendre et puis profito jaajëfal bu baax émission bi ndaxte keroog vidéo ki ñu fi wane woon mu dugg di jéem a ci benn boutique nee na yu ni mel ñun dañ koy war di gën di fésal et population bi tamit di collaborer ak police genre situation yi ni mel xàmmee nit kooku am nga droit dénoncer ko ndax pour euh, jàppale sa réew la loolu tamit dafa bokk ci jàppale sa réew mu nekk message yu am solo yoo xam ni euh, war nañ ko mën a partager ndoog téléspectateurs yeeg internautes yi réponse baa ngi noonu gaa yi bari euh, xaar ma xool commentaire internautes yi ma xool commentaire internautes yi ba xam naka la ñuy naka la ñu gisee réponse bi ñu joxe <laughs> gars yi dafa mel ni xaar ñu ko woon de réponse bi wana leen waaw réponse bi c'est c'est vrai bett na leen xaar ñu ko di jaajëfal bu baax euh, ki nga xamante ni mooy jox réponse bi dina xam ni moom la ñuy waxal di ko jaajëfal mais surtout explication yi leer yi nga xam ne wax na ko ci question bii nga xam ne fi lañ ko bàyyi woon euh, mi ngi nii am na solo donc voiture pour police mooy am priorité ci con euh, mooy logique bi contexte bii donte situation yu ni mel nee na bariwul ndaxte foofu ay sens interdit la. mais question bi nee na euh, situation yu ni mel parfois ñu dund ko te toujours voiture police mooy jiitu parce que moo yor sécurité président bi ensuite euh, yeneen yi topp ci président ak euh, ambulance ak sapeur. mu nekk lu am lu lu lu am solo loo xamante ni vraiment gis nañ ni euh, internet yi ñoom ñëpp ngi ci joxe seen ay euh, commentaire hashtag bi euh, sunu net la Facebook Twitter wala Instagram jaajëfal leen ci seen ay commentaire ni ngeen jaajëfal gis naa live yi Facebook actuellement ñëpp a ngi liker ku nekk di commenter actuellement en live ci suñu plateforme digitale yëpp rawatina Facebook live gars yi nag nee nañ ma waa Facebook live rek ngay xool. Instagram live maa ngi leen di bu baax YouTube live aussi jaajëfal euh, ajaa madame Guèye bi nga xam ne mooy jàpp ci euh, liggéey bi nekk na lu am solo <laughs> jaajëf euh, réalisateur bi nag day mel ni moom mooy def émission bi mais yàlla baax na ci joxe wàlle bàyyi internet yi commentaire ma xool tuuti seen commentaire yi wanaat leen image cachée bi nee nañu ñoom ñooy décider wax naa ko émission bi si interactive seen ay commentaire question yi ngeen di posé yëpp dañ koy partagé ak ñoom wanaat image cachée bi ñu xool bu baax ndaxte réponse yi ma gis nii dafa mel ni gars yi dañu commencé foo de toujours maa leen di orienté euh, Pierre wan leen wan leen question bi image cachée bi kan moo nekk ci ginnaaw image bi ñu xam kan la hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram pour ñu mën a xam bu baax ndaxte réponse yi gars yi di commencé joxe nii daal dafa mel ni dañu commencé jàddu gauche wan leen réalisateur yow lay xaar. wan leen caché wan leen image caché bi ñu xool bu baax def mën a def capture bi partagé ndoo ko ak euh, internet yi ak téléspectateurs yi jaajëf ah baax na kon ñu dem euh, voilà mi ngi noonu image cachée baa ngi noonu image cachée baa ngi noonu am ngeen possibilité répondre joxe seen ay euh, réponse ci plateforme yëpp rawatina Facebook live Instagram live YouTube live jaajëfal leen yéen internautes yi mënuma lim ñëpp mais maa ngi gis commentaire yi ñi ngi gis commentaire yi partagé leen vidéo yi comme ni ko euh, gars yi di waxee ñu jàll ci leneen lu gën a am solo wala leneen lu am solo luy jàll ci internet bi gis nañ benn challenge bu xew qui veut être roi ñëpp a ngi koy partagé ci réseaux sociaux yi et puis yemul rek Sénégal partout dans le monde ba mujj gi dafa mujj nekk concours waa Afrique mën nañ ko wax Europe partout dans le monde boo nee internet amul frontière challenge baa ngi nii sénégalais yi nag am ci taxawaay bu am solo ci fësal di wanewaale aussi seen ay costume gars yi di wanewaale seen ay créativité grand P mi toj na fi d'ailleurs bu grand P bi lañ leen di proposé balaa ñoo ñëw ci yeneen challenge yi acca voilà challenge grand prix la qui veut être roi benn série euh, la viking buy dem fële ca euh, mi ngi jàll fële ci Netflix Ragnar joué ko mu nekk loo xamante ni aussi euh, ñëpp a ngi koy partagé série bi aussi def na buzz ndaxte ci réseau sociaux yi ñëpp a ngi partagé ku nekk def sa challenge d'ailleurs am na benn sénégalaise bi nga xamante ni Faynaar mooy turu TikTok am moom tamit gis naa ni partout dans le monde ñëpp a ngi def partagé challenge bi nga xamante ni gars yi ñu ne di ko réussir acca Si vous voulez être roi, vous devez me tuer. challenge réussi bi moom moom moom rafet na trop bokkul ak bu grand P bi ku nekk sa dëkk lay défendre waaw ci internet bi gars dañuy défendre euh, waa Sénégal dañuy féete ne waa France taxawee ne ku nekk di gën a yëkkati wane sa appartenance ci sa réew mais surtout challenge bi sénégalais yi ni niñ ci ni ñu ko réussir mais am na yeneen dëkk nag yu ci am taxawaay bu am solo je pense def nañ leen benn compile pour yeneen dëkk yi mais surtout euh, challenge bi ni mu waree àddina je pense Pierre bu élément boobu euh, pare ñu dégtal ko téléspectateurs yi internautes yi daal di ñëw tàggatoo mi ngi noonu bii nga xamante ne mooy série euh, bi jàll fële ca Netflix di Viking challenge bi wër na àddina ba dëkk yëpp jël ko Sénégal nag desul ginnaaw moom ngeen doon seetaan sànq fay naar mi ñu choisir wala man personnellement gis naa ni challenge bi da ko réussir a ca jaajëf mi ngi noonu challenge qui veut être roi ñëpp a ngi koy euh, def ñëpp a ngi koy partagé bu leen neexee ngeen def seen challenge envoyé ñu ko ak hashtag bi sunu net Facebook Twitter wala Instagram tey euh, journée selfie bi dinañ dajale photo yi nga xam ni internet yi commencé nañ ko posté heure bi jot na suba ñu ñëw partagé ndoo ko ak yéen mën na nekk jaajafal leen jox leen euh, dig daje mais balaa boobu dañuy jeexale benn vidéo mais man dama leen di tàggatoo ak équipe bi jox leen dig daje ba suba ci beneen numéro li xew ci biir internet bi suba la mardi waaw deuxième numéro la semaine incha allah jaajëfal leen jaajëfal ñëpp ñu ñu doon suivre ci réseaux sociaux yi.